jërëjëf ñu mujjee ak Abdourahmane Diouf mi nga xam ne moom tamit bokk na ci ñi ñu recalé yëkkati na ay kàddu ca ndaje mooma gannaaw ba nag kàddu yooyu dafa mel ni moo ko jural daal ay critique ak ay commentaires yoo xam ne daal dafa xëy na négatif Abdourahmane ñu dellu waat. et je lance un clin d'œil à nos amis de Pastef je sais pas ñu ngi ci salle Bassirou en très très très grand danger parce que ñun ñi jàng droit xam nañ nan interprétation ba dugal ci li nga ci bëggul dugal à tous ces misérables nous ñun ñooñu ñëpp nga xam ne nous sommes les misérables du parrainage c'est nous qui allons faire cette élection présidentielle soit ñu booloo ko wala ñu dajaloo ba nga xam ne dinañ jàkkaarloo ak ñoom ah minuit onze heures la wax bu gaan midi la wax mais je pense que nii neuf heures et demie sax ñu ko voilà kon mi ngi noonu kàddu yi moo euh, tax bi mu ko yëkkatee ba léegi daal ci réseaux sociaux yi fu ci nekk ñu ko fay euh, commenter rek di ko critiquer ak lu nekk ndax Assane jàpp nga ni baatub euh, kaaw Jomaay Fay xëy na mën naa critique bokkam ak yeneen yu ni mel ñoom ñu jàng droit ak lañ ca gis ndax jàpp lii nii jaroon na ñu koy commenter rek ko xas. waa xam nga man bu ma neexee ma ni Jomaay moom du jàll mun a jàll te li ma koy tegit mooy dama ko daan teg mooy doole. ñëpp ni Assane mi kat dafa jàpp ni mbir mi jaay doole la wala doo ci bokk di ma rey tegu ko ci xam-xam. moom mais nag ku toll nii. Hmm. wax ni ñoom ñi jàng droit bu fekk see jaay doole. loolu moom dañuy xam ne kon ñàddal nañ ñàdd nañ ko ba pare. Basiiru kuñ ko ñàdd. ñooñu àtte ñu ko war a baare. jaar jaar rek la ku ñàdd laa ah, ñoom ñu jàng droit xam nañ ni pour mu jàll day difficile. waaw ñoom ñi jàng droit laa xam nga su droit lañ ko teg xam nga tey jii bu ñu nee man xam nga man bu may wax damay xool lu yanu maanaam ma ne ñii ni ñuy xeexe nii te kii bu bokkee mën na leen a mën na leen a mën na leen ma ni kon gëm gëm naa ne du bokk mm-hmm. te teguma ko ci maam si yoon teguma ko si yoon mais si jaay doole laa ko teg man sama sama jàngat mais kii nag si yoon la ko teg moom li mu wax mm-hmm. voilà léegi nag fekkee loolu am na mu wax ko ba pare indi ñu abib si mm-hmm. joxañ ñu ko am xam xam nga ni kon Habib moom bu ñëwee ñoom ñi danañ man a liñ bëgg lépp nan nañ ko am man waaye waxtaanaat toog ndaandaat noos gouvernement bu nooy bu kii gouvernement continuité daal te it ndaw lañ soxla lu ndawa a ndawa ndaw a ndaw jomaay soxla nañ ko wala ñeneen ak ñeneen mais soxla wuñ mag ñi daal te mag ñi moom di wax dëgg yàlla nañ ñu ñaanal ñu toog yor si seen mag yàgg naa ak yàlla de man yi moo tax ñu war ñoo toog toog fee di ñu ñaanal mag ñi ku ci campagne 15 jours ci àll bi ñëwoo tooy <laughs> tooy ngay def. gars yi seen oto yi neex na de. seen oto yi neex na waaye doo daana yi xam nañ ne tëli yi baaxuñu tëli yi régions yi benn tëli baaxul yoonu suuf yi baaxuñu kon nañ bàyyi mag ñu toog gone yi wàcc ci terrain bi wax ak ndaw ñi seen kii bii nag moom it buñ xaaroon tuuti rek kii daal di joxe ni tekk xam nga maa ngi dégg ñaan Déthié Fall ngi ni nanguut a wax ki si des Cheikh ñii ñu nanguñoo nanguñoo wax hmm. ñoom fi ni nii wax waru leen ginnaaw ñoom ñooy def boo defee ñu wax boo deful ñu wax da naan tekk di leen seetaan ba xam fan lañ jëm. d'accord man ñi bu ñu fekkoon ni kii bu ñu nee tekk tuuti rek xaar ba gars yi tànn ba pare ba wax ba pare si ñu def conférence de presse wut ab bloc mais fii ni lii xam nga lii saaru coalition la. Hmm. Mimi Touré Abdourahmane Assane Diouf mi ñooñu ñëwagun nañ léegi ñeneen ñi ñëw doolee ko si ñeneen ñi ñëw doolee keneen ku ñëw ci seen ginnaaw ngay topp. d'accord waaw mais nag fi ne nii coalition moom dafa xaw a teel nañ xaar tuuti bañ tànn ba pare ñu xoolaat ñan lañ si war a topp te moom toppoon na Idrissa Seck. moom hmm, président Bougane gis gars yi naan kii jikko Idi la Bougane xam nga ba mu toppee Idrissa Seck ba Idrissa Seck dem tàgguwu ko mu toppaat Bamba Fall Bamba Fall ba muy dem tàgguwu ko léegi nag buy toppaat tey na xool bu baax ñi muy topp wala ñi muy ah, jàppale waaw dëgg la hmm. li wax noonu am na solo hmm. xam naa Bougane dina ci bàyyi xel na baax ñi muy àndal alaaji ba léegi sax dem démb na lu ma gis bi élément bi jàllee fii mi commencé wëy que waa ji na noppi dégluwuñ ko ko soxor la ko nàngam est-ce que li mu wax da nga cee gis ak coxorte gu jar loolu waaw xam ñuy wax ne euh, Abdourahmane dafa soxor <laughs> di ko commentaire ñenn ñi di wax yenn yeneen wax euh, tamit <coughs> ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk xam nañ ni lu ne mën naa am mais li ñuy bañ rek mooy ku ko wax <laughs> waaye xam nañ ni ak résime bi lu ne mën naa ne hmm. waaw lu ne mën naa ne Ousmane Sonko it xam na ni lu ne mën naa ne. Hmm. moo tax it mu préparé leen lu ne. lu ne. waaw parce que xam ni lu ne mën naa ne da ngay préparé lu ne. Hmm. boo ci bëggee génn. moo tax it Ousmane Sonko préparé na lu ne. dëgg la léegi nag Abdourahmane Diouf xam na ni Ousmane Sonko préparé na lu ne moom mi wax wax ji. Hmm. te xam na ni moom it lu ne mën naa ne. waaw te xam na ni Ousmane Sonko préparé na lu ne parce que gis na ni Ousmane Sonko tëggee ay mbiram kon donc loolu leer na ko kàddu gi nag li ci intéressant nag mooy euh, li mu jiital. maa ngi lancé appel nos amis de Pastef sunuy xarit. waaw bon sunuy xarit boobu. peut-être que ni appel la boo xamante ni bi wane na ni euh, ci biir appel bi parce que xam nga situation politique day wëndeelu Abdourahmane Diouf élection yi passé àndutoo nag euh, Ousmane Sonko mooy élection député yi ànd bokkuñu woon coalition créé woon nañ seen coalition bi la yoon euh, demal na boppam aussi tamit jàllut parrainage mm-hmm. comprendre nga waaw ci jamono ji ñu toll nii eh, dañuy wut ku ne day wut tamit ay pexe yoo xamante ni bi eh, war nga ko mën a maanaam dangay nekk ci ay stratégie ay calcul ak affaire yooyu comprendre nga hmm. maanaam moom li mu wax noonu xam na ni ñi mu koy wax xam nañ ko moo tax ñu doxalee ni nga xam ne noonu lañ doxalee. Hmm. mais est-ce que nekkul ni benn genre appel la boo xamante ni bi c'est pour wane ni man ak yéen malgré li passé. samay nit ngeen samay xarit ngeen te pare naa pour que mën nañ ko interpréter beneen façon boo xam ne bi bokkut ak bi ko nit ñi di déggee que ni daf koy yàqal. parce que ànd mën naa amaat. parce que nekkul li koy yàqal mënut a jóge ci moom. Mhm. nekkul ku koy yàqal quoi man gëwuma ni Abdourahmane mën na yàqal Basirou. Mhm. donc bu waxee pour man genre wax la boo xamante ni euh, leader Pastef yi. Mhm. mën nañ décorer daal di xam ni parce que nee na ñun ñi jàng droit am na yu bari yoo xamante ni bi xam nañ ko. te pareen saay am na gars yi noo leen di jiitoo ci communication ci lenn li sax mën na defar maanaam wax ji muy wax ñu bari mën nañu jàpp ni mën na yàq mais mën na nekk tamit aussi tamit ci beneen angle loo xamante ne bi euh, mën na defar mm-hmm. parce que nit ñaa ngi koy xalaat waxuñu ko waaw moom nag wax na ko mm-hmm. donc pareen saay mën ngay xalaat dara doo ko wax jekki-jekki mm-hmm. euh, lekk gars yi ne la ko pëy mais lii mu wax nii maanaam daanaka mi ngi wax ak ñeleen ne leen xaa gis nañ leen xam nañ fi ngeen bëgg a jaar genre wax yooyu tamit mën na signifier loolu mm-hmm. donc pareen saa yi mën na def benn recul waaw mën na mën na nekk lenn quoi comprendre que maanaam euh, politique dafa dafa doy waar mm-hmm. it bon jàpp naa nit lu ne mën na tab bu xam na daal moom mm-hmm. moom xam na xam na yëfi waaw bon dégluwuma kii bi yëpp ba mu jeex parce que Assane nee na dafa wax lii ba noppi euh, joxañ leen Habib si du loolu yow loolu. Mm, yaa ko ci yow man moom dégguma ko. da ngaa déglu. déedéet man maa man direct de maa ngi Modou ñu ngi toog. waaye ah. loolu moom dégguma xam nga. man na maa yooyu xam nga Habib mu nekk fi mu toll tey. doo moo ko wax. déglu fii. ah déedéet ndax moo ko wax. moo ko wax. dégg ci ah, élément bi. Ah. man de dégg wax na ko de joxe Ablaas. joxe Ablaas mii mu àggalee bu ko dagg. non non am solo la da ngaa joxe xabaar waaw lee moo solo jox ko <laughs> <laughs> Ah, kon kon ay waxam solo de kon li ngay wax amul solo ay waxam daal wóorul c'est bon rek laa bëggoon a xam kon li ngee wax solo. mais en tout daal li am solo son bu. waaw mooy daal euh, fi mu toll nii tey euh, nañ xam ne daal ab nañ xam ne daal fi mu toll nii daal man pour man. Mhm. Euh, lépp loo xamante ni bi dafa jëm ngir tasaare leen. Mhm. pour man force yëpp dañu war a rejoindre mooy li ma la wax sànq. Euh, force bi nga xamante ni bii leer na leen ni kii moom def na ay preuve am parce que depuis kii te sunu borom am na loo xam ne moom la ko may sénégalais yëpp toog di ko déglu dem rejoindre ko mooy li gën te man pour man Abdourahmane Diouf li mu wax ni wane na ni ñii samay xarit ngeen te it tuddut ñeneen quoi d'accord comprendre waxut ñeneen parce que mënoon na wax ne Karim Wade na moytu mhm. mënoon na wax ne eh, kenn moytu mais jàpp na ni moom ak ñooñu bokkuñu gis-gis jàpp naa ni ñi mu bokkal gis-gis la wax ni eh, il faut faire très attention et cetera. loolu defe naa ni naka gaa yi gën a tàllal loxo daal. Mm. bañ di xarab di wax wax yi kii quoi parce que defe naa ni jamono ji moom loolu xajatu fi quoi. xajatul di kii quoi bu nit ki defee lenn rek. Mm-hmm. am ko comme xarit defe naa moo gën tamit ak lu mu mën di demee am na ay nit ñoo xam ne bëgg nañ ko sopp nañ ko. Hmm. te bon bokk na ci ñi wax naan am na ay valeur. fi nga jëm dafa soxla ay nit ñoo xamante ni bi te tamit dafa soxla mbooloo. Hmm. aussi tamit soxla nañ ay nit ñoo xamante ni bi tamit nit ñu am kii lañ quoi donc bu gaa yi xarab quoi. Hmm.